salam salam gars yi maa lay nuyu di leen ziar bu bu baax a baax ah. euh, gars def naa ni ko ñëpp gisee gis nañu euh, Ousmane Sonko sur sa page Facebook mu wax na jot na résultat analyse bi mu doon xaar résultat yi nga xamne mo moo nguur ki fan yii euh ndaxte jamono jooju daño gis force de défense et de sécurité yi toj auto dugg ci auto ab lu ñu ko sorti loolu Ousmane Sonko moko ko inventé.

nga gis ay kaaru gendarmerie ay drone top ko moy jamono jojo yëpp certainement ils avaient un projet euh, di ut buntu bo xamne dañu mëna am accès sur sa personne parce que so la jangal mbir mi bu bu baax a baax yàgg nañ ko dal yag nañ ko topp waaye mosuñu ag ci kawam physiquement té loolu dafa am lu ko waral ci sama yakar moy jour Ousmane Sonko amé son son meeting à Capes génn buntu këram ne Marème Faisal ak Amadou Sall dañu jël ay nervi man jour bu mu waxee wax jooju dina xamone nan dina am conséquence parce que général Moussa Fall Macky Sall tegu ko fi Marème Faisal Sall fi teg Moussa Fall c'est un proche de Marème Faisal c'est pas un proche de Macky Sall Moussa Fall dañ ko indi def ko général des de la gendarmerie suite à l'histoire de Adji Sarr mo am ay ay ay ay ay ay mu am lu ci tak tak tak lo xam c'est à un niveau insoupçonné complot Adji Sarr bi complot Adji Sarr bi dafa àgg foo xam ne c'est à un niveau insoupçonné la venue du général Moussa Fall à la tête de la gendarmerie pour essayer de nettoyer tout cela dafa am lu ko sabab te loolu dina ñëw ñëwagul ba léegi mais c'est à un niveau insoupçonné dafa am une personne boo xam ne lépp ci xew ci réew bi moo koy togg di ko tëgg di ko manigancer génn di si nit ñi dafa am koo xam ne ci réew mi lu fi xew moo ko tëgg lu fi am moo ko ndombe bu fi am moo ko ku am doole ci rewmi mo moo doole sax jitum rewmi te def na euh doy na borom xel ci lañu attaqué physiquement nak Ousmane Sonko pour la première fois retournant en arrière Ousmane Sonko yàgg na wax mais dafa génn ne Marème Faye Amadou Sall te Amadou Sall ak Marème Fay Maké mën nga wax ñëpp du la mais faut toucher, parce que nous, ba jamono joo xam ñu ngi wax ci pétrole nous devons sortir ci sortie yu bëri mu am benn nous bu ñu dey nañu fexe leen pour le turu Marème Faye Sall ci ci la que Charles euh, bi a ci pétrole bi financer, financé financer financé la fondation de marine faisal une semaine après la première fois que Macky Sall a parlé du pétrole c'est parce que tout Marème Faye Sall dafa faut ci mbir le bu ñu ne xaalis bi dafa financé la fondation Marème Faisal, servir le Sénégal li may wax ni xamna ci lu bare buñu ñu tuddee Amadou Sall maram Faye Sall laa ci lañu ñu physiquement ci kaw Ousmane Sonko dafa am lo xam mo moo déclenché nag bii ñu ni ki nak fuk ñu àgg ci kaw mais kan mo ne ñu àgg ci kaw moy ko xam damay fayontu kan mo lam fayontu lan mo xew ba fayontu wara am fayontu gi parce que dañu tuddu tudd maram Faye Sall tudd Amadou Sall Cheikh yirim sak yàgg na leen ko wax Marème bëggul ko tuddu doom donc pour la première fois ñu àgg nak physiquement ci kaw Ousmane Sonko dafa am lu ko déclenché delloon ci ginnaaw ngeen ñi jàngat Sénégal foog ngay taxaw di jàngat ay événements le jour Ousmane Sonko a prononcé Marème Faye Sall Amadou Sall ci la dem meeting ak APES di ñibbisi dara xew ñu song otoom dafa jóge meeting di ñibbisi kërëm ñu song auto di dóor ay gaz lo xamné li dañ ci song que y a quelque chose de personnel alkaati bi keroog bu mu koy pompé loolu mu ko pompé tu sentais qu'il y avait quelque chose de personnel sur acte c'était personnel c'était pas pour dégg mais c'était intentionnel c'était en plus tu sentais que lui, c'était personnel am lo xamne motax mu def li amna ko xamne sant na ko ko ki agal mo ci ko day melni rek nga am ko jotel muy sa sœur wala sa dom wala kenn yow nga am lu personnel lo xamne ne da nga ko bëgg régler donc Marème Faisal, Sall dafa am lu personnel lu mu bëggoon régler ak Ousmane Sonko ñu agati ko physiquement lolu mo xew nañu analyser mbir euh, leneen lu nous bëgg a wax mooy Macky Sall wax c'est une grosse erreur quand j'entends des gens dire euh, man Macky Sall du ko il faut l'écouter Macky Sall day seen suy wax Macky Sall suy wax da ngeen kii qui leen kiy pas bu baax a baax te di ko dégloo xel lu jëm ci Karim Wade Khalifa Sall nee pour pour amnistie fokk mignon ñëw toog waxtaan mais Macky Sall il prend jamais le nom de Sonko mu ne dialogue bi ku mignon na ñëw ku bëggul bu mu ku gedd sa yaay moo aye wax boobu dafa am ku mu tontu lolou tontu la Macky Sall waxu ko nii dafa tontu ngeen dellu ginnaw ñu ne Idrissa Seck demoon na setti Ousmane Sonko Macky Sall ne lolou musuko ko donc lolou day confirmer ne Idrissa Seck bu muy setti Ousmane Sonko dafa demoon pour négocier au nom de Macky Sall il a dû recevoir il a dû être euh, renvoyé Idrissa Seck Idrissa Seck ci boppam xamna lu fa jëlee waru neex mo waral Macky Sall tontu tontu ne ku gedd sa yaay mo ayé dafa am kumuy tontu xaw ma nag bu baax limay wax dafa am kumuy tontu ko ni wax boobu donc Macky Sall suy wax danañ koy mbir bi na euh, gën troisième mandat mo ne ñooñu ay lañu ut qu'est-ce que ça veut dire ku ne jàmm mooy paix 3 mandat Macky Sall ñooñu ay lañu ut ay kon donc on va aller vers la confrontation ak ñom ku ne jàmm moo gën troisième mandat nga ne ñooñu fitna lañu yé moy fitna tu suppose que ne yow da nga may dem troisième mandat te ñooñu suñu ñëwé man duma delu dellu ci lu ma donc fitna dina am. motax tax Macky Sall suy wax danañ kiy déglu day sen bu muy wax li fi amone du fi amati danañ xol vidéo dafa matatu bu mu paré wax Macky Sall suy wax danañ xol son son comportement danañ xol gestuel yi tu apprends énormément de choses Simon. donc man loolu rek laa bëggoon wax ci lu gàtt pour bañ vidéo bi guddou ñu ngi tuub euh, bu baax di jégalu asalaamaaleykum.